man dama nan rew mi est ce que ñu andate ak mak Sall man loolu laa nekk di wax rew mi est ce que ñu andate ak Benno Bokk yaakar mané candidat yi dess est ce que ñu and ak ñom man waxuma la nit ñi nga xamantene ñoy top convoi bi mais ñi nek ci kaw terrasse ñi nek ci nga xamantene sen kaw balcon ñi nga xamantene ñu ngi dajaloo ci mbedd ñu ñoo ëpp téeméeri junni yoon man damay naan da ngay tax yému ci yalla xolal li rek vamos ba vamos nga ca ginnaaw a ginnaaw a ginnaaw dem gis Macky Sall waxtaan ak moom ne ko léegi yegg nangu ngeen nañ jël li nga xamante ne mooy réew mi teg ko ci loxo jomaay comme ça nit ñi 15 jours nii dinañ ci mën a liggéey liggéey bu normal parce que gëm naa ni su nekkee nii la a continuer dina doon 15 jours yoo xamante ne liggéey du yomb ci nga xamante ne mooy réew mi dina métti kon Sénégalais yi pour ñu déplacé wu kon yeneen candidat yi bu leen rëy bu leen rëy ah, dem gis ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall ne ko léegi ñun ñoo bokkoon ñun ñoo newoon dañuy dem léegi ñun ñun d' accord nañu jëlal li nga xamante ne mooy réew mi non man mënuma daw de man mënuma daw mënuma daw ci moto laa yéeg mënuma daw boy yi li ñuy daw man antanuma ko waaw boy yi dañuy daw te lu ci gën a garaaw dañuy paddaate waaw noonu man bàyyi mu yéeg ma ma toog si moto bi rek waaw bàyyi ma ma toog ci moto bi rek waaw ay daw moom ay daw moom du ma ko def waaw ndax booy yi bëri nañ bëri boo xamante ne te tam ñu pàdd la fii nii nga daanu waaw yow Allegra yow moom bëggoo ma yow Allegra Fall yow mi naan mën naa daw waaw booy yi nga xamante dañuy entraîné guddi ak bëccëg yow nga naan mën naa ànd ñoom daw xam nga yow bëggoo ma de. jaay sama gars yi gis ngeen de convoi ba léegi mu ngi nii. ndeysaan amoo dara loo ma yéene naan mën naa daw waaw amoo dara loo ma yéene nga naa ma indi dugal nga daw waaw booy yi nga xamante ne sen daw yi moto yaa ngi ni fees bi dell waxuma la dara te mu padd la waaw nga naa ma damal daw yaramam lii kan la dawul yaramam lii kan la dawul yaramam xoolal ma ndaw yi xoolal ma xale yi xoolal ma xale yi ndeysaan lii kan la dawul yaramam xool leen lii rek xool leen lii rek lii kan la dawul yaramam lii kan la dawul yaramam lii kan la dawul yaramam xoolal xale yi ni ñuy daw xoolal ma xale yi ni ñuy daw xoolal ma naaj bu tàng bii nii xoolal naaj bu tàng bii loo xool xale yi ni ñuy daw lii kan la dawul yaramam ndeysaan xoolal ma gars yi oh sa yaram sax day daw laa lay wax yaram sax day daw sa sax day daw yàlla xam na ko. neen dañuy wër parcelle. dañuy wër parcelle nee nañ. booy neen dañuy wër parcelle balaa ñu booy neen dañuy wër parcelle. ba pare Gara Fall naan ma ili dawal lii su ma ko dawee fan laa jëm xanaa da nga premier jour campagne ma jaar ba jaaree tooy ah yow Alain Gara Fall nga ama jógal daw daw lan maa ngi nii ci moto bi laa yëg

yi daal nee nañ soo leen bëggee dégg dëgg waaye ñoom nee nañ demaguñ akafes ñoom nee nañ ñu wër partel wër partel ba 15 heures ñu doog a dem akafes ndeysaan ndeysaan li day waa idi mooy lépp fu ñu jaar nga gis ñu ñëpp génn. billaahi loolu moo ci doy waar. ñu ngi yóbbu. voilà premier tour ñu yi nee nañ soixante quinze pour cent bu ñu doon dafa ndaw waaw nee nañ quatre vingt pour cent lañ bëgg nee nañ balaa dix heures balaa dix heures. waaw ñu ngi ci parcelle parcelle lañ nekk ñu ngi dem parcelle ñu jógee foofu di dem croisement 22 waaw xam naa noonu la ñuy génnee dem jaaree église. moo moo bi moom laay chargé moo tax xam naa yii ñu quelques images yi soo leen ko gisee normal rek xam leen ni sama beneen portable moo bii bi moom laay chargé waaw bii sama beneen eh, toorandoo ngoog toorandoo sama star sama star toorandoo muy noonu nee naa leen ñi nga xamante ne ñëwaguñu parcelle xam naa ni soo leen ñëwee soo leen ñëwee gëm naa ni yem de ndax lii ma gis nii ñëw lii ma gis nii direeku lii kañul agabes waaw lii kañul agabes ma ne li ma gis muy diré ku xajul ak a bes encore une fois waaw waaw gars yi ñu ngi ne combat bi ci kanam taxaw na combat baa ngi ginnaaw ñëw